faut jamais avoir de plan B. Il n'y a que trois catégories de personnes sur Terre qui ont le droit d'avoir un plan B. Alors peut-être que vous en faites partie. La première partie, c'est les perdants. Les perdants ont tous un plan B. La deuxième catégorie, c'est les lâches. Les lâches ont tous un plan B. Et la dernière catégorie, la meilleure, celle que je préfère, c'est les faibles d'esprit. Les faibles d'esprit ont tous un plan B. Jamais avoir de plan B. Il n'y a que trois catégories de personnes sur Terre qui ont le droit d'avoir un plan B. Alors peut-être que vous en faites partie. La première partie, c'est les perdants. Les perdants ont tous un plan B. La deuxième catégorie, c'est les lâches. Les lâches ont tous un plan B. Et la dernière catégorie, la meilleure, celle que je préfère, c'est les faibles d'esprit. Les faibles d'esprit ont tous un plan B. waaw noonu la de ñu de plan B amuñu ko Sonko ci lañ teg ci kanam Sonko mooy A mooy B noonu waa askan wi nag la sonk waxoon mooy li am Macky Sall mënu ko tee bokk ci élection yi bu ci bokkul rek bu ci bokkul rek peuple bi yéen peuple yéen a war a jóg riposte yéen peuple yéen war a jóg taxaw yéen a war a jóg xeex bu Ousmane bokkul ci élection yi yoonu Macky Sall néewu ci xam nga comment noonu askan wi askan wi kat moo yor dëgg askan wee doxal dëgg jóg leen jóg leen jóg leen jële fi Macky Sall mii indi fi élection yi normal soldat di géré ko lépp génn tegu ci yoon diggante bi gàtt na de diggante bi gàtt na jóg leen jóg leen Guinée bii duñ ko bàyyi mukk mukk mu yilif réew mi dama ne Guinée bii dafa combine ak tubaab bi ànd ak sëriñ sii waaw ñun Ousmane sonk lañ bëgg moom la xam dama ne bu école ubbee yéen élèves yi yéen élèves yi bu ngeen di jàngi wooy leen namm naa laa Ousmane Ousmane namm naa la bu ngeen ne bu ci cours bi avant ngeen di dugg classe Ousmane namm naa la na jolli bu ngeen ne ba wàcc bay génn mbedd ba ngeen di àgg seen kër Ousmane nay jolli na Ousmane na mën naa la nay jolli xale dafa am lu yàlla def ci moom loo séen ci biddiw loo seenu ci biddiw rek man ko fi ci xale jarul ngay teen dama ne loo seenu ci biddiw boo xoolee ci xale gis ko xale jóg leen bu lànk leen Ousmane na mën naa la na jolli Ousmane na mën naa la na jolli na jolli woyu nii dong la maa leen koy tegal waaw ngeen jàppoo ko noonu rek jàppoon ni ko nii rek waaw bu ngeen yéen ci école beeg bu ngeen di ñibbi cinq minutes avant ñu ci classe si Sonko namm naa la ñu lay jolli ay mbaam ay mbaama ni ci classe si àll bi ay mbaam nawet bi ay mbaam ñooy fanaan ci cour école yi waaw noonu dong la noonu la Sonko namm naa la xam ngeen ko xam ngeen ni koy waaye na de na jàpp leen si ba mu dëgër ba dar parce que yéen xale yi yéen la ñuy xeexal de yéen la ñuy defar réew mi yéen ak moom ëllëg ñii ñii laa wax ñii depuis mille neuf cent soixante quinze maa àll bi ta bër doomu ministre yi ci école yu baax la ñuy jàng ak député yi allu Sénégal lañ sàcc xoolal mbaar yi ci mbaar ngeen nekk yéen xale yi lànk leen xale yi ni ci mbaar yi génn lañ génn lànk leen génn leen taal mbaar yëpp waaw xaalis am na ci réew mi dañ koy sàcc waaw ñoom Amidou Ba ñi xaalisu réew mi politique yi lañ koy def dañuy fenn waaw bu leen ko nangoo ah waaw si ba mu ne xel mbaam yi mbaam yi ci kuuru école yi la nekk waaw. Niger am na école bu fa école bu fa lakkoon école bi école u paay la école u ñax waaw dafa dee ci élève man na vingt et quelque lànk leen ah lank leen waaw dañ leen nax rek seen peinture bi baaxul peinture bi ci école yi baaxul peinture yi dafa am lu ñu naan plan yéen xale yi bind leen plan plan ngeen dem ci ab docteur laaj ko plomb mooy lan ak lu koy indi ah mbaam yi sa mbaam yi ci kuuru école yi ah lank leen ah bu leen leen nax seen doom yi ngi ci ñi ngi fii ci Amérique di jàng seen doom yi la ma ne ñi ngi fii ci ay kër lépp lañ leen jëndal ci xaalis Sénégal yéen ngeen boo ko ek kuuri école yi mbaam yi lank leen bu leen dem école wala bu ngeen demee woy leen woye na woyu jolli rek na woyu jolli Ousmane Sonko dana génn bu soobee yàlla ñu defaraat école yi ba mu yu baax nga xam ne classe boo dugg rek trente personnes au maximum moo fay nekk waaw man dem naa su école yi foofu seen école yi foofu cent dix élèves par classe cent par classe xale yi lànk leen bu leen ko nangu bu leen ko nangu bu école tijjee xoola may leen xel seen mbokk yi ci àll bi waaw seen école yi ay mbaar ci mbaar yi ñax ci la ñuy jàng ah dañ leen di fooxal lànk leen bu leen dem école bu leen dem école waaw nan def école ba mu baax ba mu baax ñu éducation normale bu baax a baax fooy ñi leen di jàngal fooy ñi leen di jàngal ah lànk leen sonk na mën naa la dina jolli na jolli waaw yéen xale yi yéen yu tuuti tout tànk yéen tout tànk yi yéen a mën a jubbanti Ousmane sonk bu bokkul ci élection yi wala génnewuñ ko na woyu jolli na woyu jolli ba ba réew mii normal waaw tant que réew mi lii daf nga lii jaaru na ah doomi Macky Sall dana dugg fii yaakaar ngeen loolu ndax ngeen seen bopp ñu ay doom yi fii lañ ndokkoon fii ci dëkk bi waaw ma xam Marème Faye Sall nekkoon na moom fii njabootam gépp fii lañ jàngee wolof wolof sax wolof yu baax wolof yu baax dégguñu ko seen doom yi dégguñu wolof yu baax sax làkk leen ay wax dégguñu wolof yi fii lañ nekkoon ak ñun waaw àll réew mépp sàcc nañ ko ma nga Dubaay Dubaay la nekk àll Sénégal yëpp ah yéen ngeen ci néegi ñax yi hôtel bi muy fanaan bi muy fanaan quatre chambres la fa jël suite quatre chambres suite quatre chambres la fa jël yoo xam ne suite la waaw bi muy recevoir bi muy fanaane ak bi nga xam ne bureau bi muy liggéey ak garde corps yi fi fanaan te chambre bu ci nekk billaay mu ne nañ ci fay mille deux cent dollars par chambre par guddi comme Idriss Seck sàcc bi rek Idriss Seck noonu lay def Paris hôtel bi mu dëkk Paris parce que mii et quelques dollars lay fay ah ci xaalis Sénégal la koy fay ku mës ta liggéey li ngeen naroon a jàng ñu yàq ko lànk leen lànk leen woy leen Sonko namm naa la ca kaw waaw yuuxu leen ca kaw parce que réew mi yéen a ma du ngeen boo ko classe mbaam yi waaw man day ma rawale naa samay doom maa ngi indi fii nuy am na ñoo xam yàllaa dogal mënuñu ko mënuñu ko yàllaa ko dogal waaye nag war ngeen am fulla joo xam ne alal réew mi kenn du ko politique alal réew mi kenn du ko jox sëriñ si réew mi du pour cant du pour canta ki gàmmoo ki màggal de yéen xale yéen moom réew mi il faut ñu defar ci seen bopp yi former leen ngeen doon ay étudiants yi normal normal mën a jàng mu ne tegaal teen woy na woy mokk balaa école ubbi mokk balaa école waaw na jolli rek noonu la noonu lañ ko saxoo rek te ngeen lànk mbaam yi ne ci classe yi mbaam yi dañoo feebar bu leen bokk lànk leen pent bi mu pentre classe yi baaxut taw bi moo ko empoisonné taw bi moo ko yàq taataa yi noon saalu classe yi lépp plomb la pënd bi ngeen di nooyi baaxut duus yi baaxut lànk leen lànk leen lànk leen réew mi yi réew mi noonu noo ko mën lijjanti nooy mag yi yoo seen i bàyyi waaw te amuñu fulla amuñu fayda kay ngeen jàng rek nu seen bàyyi amuñu ko waaw maa ngi leen ñaanal yéen ñëpp bëgg maa ngi leen ñaanal jàmm dama leen ne yërëm ngir yàlla dama leen ne yërëm waaw ku mën rawale doom def ko wala ngeen jóg wutu yat jëli fi Macky Sall mii defar classe yu baax trente élèves doy na sëkk ci ab classe trente te trente yi ñetti mètre la ñeen fi Amérique trente élèves ñetti mètre te sax heure fii classe yi kala ay douze élèves treize quatorze fii ne yéen ñu leen fontoo maa ngi ziar bu baax ci leen bàyyi lànk leen lànk leen bu leen kenn fontoo waa fexeel na Ousmane Sonko génn ñu sans système bépp ma di leen ziar nag waa di leen ñaanal man la Seydina Ousmane Dramé boo la réveil des consciences bu benee ne danaa filmer classe su Amérique yi ngeen seetaan classe yi bi laa see yaram da paar xool ay mbaar ay mbaar xam lii ruslu na ah ñu di leen nax di leen dugal ci ay mbaar ah bu nawet bi dikkee mbaam yi mbaam yi jël classe yi accam maa ki